asalaamaaleykum beaucoup internautes yi yéen a ci seen émission euh, religion ci seen chaîne Kentan TV comme d'habitude vous êtes en compagnie avec Mère et moi-même Mariane Sall alors tey nag comme ni l'avons leen ko la dernière fois ñi ngi waxtaane thème bu am solo thème boo xam ne ça concerne tout le monde parce que muy jeune muy mag ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ci bokk suñu thème nag tey muy nekk la fornication sama mère Kémane bi xam naa na leen ko tekkil si wolof li muy li muy tekki te aussi nag balaa loolu da leen di wax it fan la fornication jógee ak yan origine la am ci diine islam après nag ñu doogoon nag egsi ci suñu génération bi comme que man ma d'habitude maay représenté génération bi naa ko wax tuuti ñun ñun jeunes yi tey jii lan lan lan moo fi xew lan moo fi am pour moom it mu conseiller ñu en tant que jigéen en tant que yaay en tant que aussi femme ci bu jàng ci diine bu jàng aussi ci islam mère Kémane bismillah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 te ñu ngi wax ne yàlla daf ko araamal ti faaxan njaaloo mooy fornication mooy dundal iblis ak joñam yi ak i doomam yi mille ans ci benn njaaloo moo tax iblis du dee ba àddina tukki te dafa am originam boo xam ne euh, yàlla dafa wàccee ci suuratu nuur nga xam ne dañ doon jiiñ sayda Aïcha lu mel noonu wal iyaazu billah te jógu lu dul ay noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëbloon ko pour gën a mun a am ko rek ndax ci jigéen ju ndaw ji nga xam ne moo daan jàngale diina te mu gën koo bëgg lool yàlla daal di ciy def lu doy war wàccee ci aaya bu leer nañ loolu loolu tudde ko sóoratu lumière ndax sóoratu lumière mu setal sayida Aïcha ci bépp tuuma buñ ko tuuma yàlla commencé ko ci sóoratu nuur ne kitaabun anzalnaahu dañ ko wàccee téere mu leen di wan ne yàlla lépp lu mu bëgg a feeñal dina ko feeñal daal di nag ñëw rek dugg directement ne wa zaaniyatu wa nañ lu tax mu jiite wa zaaniya parce que nee nañ jigéen la jiite ndax jiine toujours bu bañee njool ak njaaloo am te bu utee du bu rëbbee du sooy yàlla ne gis nga ñi nga xam ne dañoo dem di jëfandikoo njaaloo amuñu jëkkër wala amuñu jabar nee dóor la leen téeméeri yàq te bu leen jël ci ñoom benn benn benn benn yërmande waxit ne njaalookat bu góor ak njaalookat bu jigéen ñoom rek ñoo mën a sëy ndax loolu la ñuy def rek ci seen àddina mu ne am na ñoo xam ne seen àddina doxuñu ko lu dul di jiiñ doomu aadama bu jigéen boo xam ne yëgul tunu di ko jiiñ lu bon di ko jiiñ njaaloo yàlla nee na asaab bu rëy laa leen di dencal yow ma xiyaam surtout ñi nga xam ne dañuy sànni jigéen boo xam ne ku jullite la ku sell la demul dikkul ñu teg ci deram lu ñaaw sunu borom nee dinaa leen buggal mbugal gu rëy ci àddina ak àllaaxira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 ñu dem ci benn seen xeex yooyu doon xeex yoo xam ne xeex yu ndaw la mu ànd ci bokk ci jigéen ñi nga xam ne dañoo doon ci xam la xam la mooy comme genre xeex yooyu nga xam ne daf daan nekk xeex yoo xam ne benn tur bu dëgër bopp yonent bi ne kii leen leen boo leen ngeen di joxe eh, impôt wala boo ngeen dugg ci lislaam comme ça ñun ñu di islam donc xeex yu mag xeex yu ndaw la woon. Mm-hmm. moom lañ doon xam la askariya. waaw léegi Aïcha nee na bi ñu demee nee man booba maa ngi nekk ndaw. tuuti aw ma poids nee na ñu teg ma ci gëléem gi nga xam ne ñoom dañ leen def gëléem yi dañuy def ci la ñuy def néegu jigéen ñi nee na bi nga xam ne ni dem nañ fa daan fenn ba përset nee na ma moom sama bugg a moom sama bopp dem ci ginnaaw sori leen tuuti nee na ba ma demee xaajati ba pare nee na ma dellu si ndekete ñoom dem nañ ndax defe nañ ne maa ngi ci biir xaw daj bi xaw daj lañ koy tudde mooy néeg bi nga xam ne mooy nekk ci kaw gëléem gi mhm. nee na ma xool ne gisuma kenn teg ki yor gëléem ga deful attention ndax dama oyof amul différence bu ma nekk ci kaw gëlëm bi ak ma bañ cee nekk ci xëcc ci bu koy xëcc. nee na ma réer ci yoon bi nee na ma xool xool xool xaw ma fan laa jëm nee na may dox di dox di dox ba taseeg benn waaye ah mu ne soxna si xanaa danga ma ne ko waa dama réer mu ne ko foo jëm ko Médine laa jëm waa jooju nag ndekete ci Médine ku amul réputation moo tax ak nit a mën a sàmm réputation muy góor muy jigéen moom dafa amul réputation coureur de jupon ñëpp xamoon nañ ko jigéen ba ko tax ak naan sàngara. waji anda ak aisha sayyida aisha radiyallahu anha ñu am ñu dem mu yobbu ko tek ko ci geleema respecté ko lool bim ko waxé ne mom moy jabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu muy dem waaye nee heure bi ñu ex ñu heure njolloor ci digg Medina jaar ci Medina jaar ci yoon principal bi nee ku leen gis rek taf gémmiñam wa jabar yonent bi sayyida aisha lan lay def ak waji ji nee ba ci kër bi mu mu dem waaye nee na teguñu ci ay fan rek ndekete rumeur bi gonflé na ndekete rumeur bi gonflé na ndekete ñu ngi koy wax ci ginnaawam lu ñaaw di wax ci ginnaawam du ñaaw ba fii yi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu jigi kii la nit rek la yonent bi nit la de mu dem bay fii mënut ko di mu nekk Sayda Aïcha demal nga toog seen kër Sayda Aïcha nee na man xamoon naa ne yàlla dina ma set dina ma setal ndax defuma lu bon xamoon naa ne yàlla dina ma setal moo tax bi aaye bi wàccee suurati bi wàcc mu ne xamoon naa ndax man defuma dara te xamoon naa ne yàlla dina ma setal moo daf ko daan ndamoo bu Zeynab bint Jahsh beneen jabar yonent bi sallallahu alayhi doomu jiit leen ba bu mu adopté woon ko mu takkaat ko kooku naan sama sëy ci alxuraan la wàcc mu ne ko man sama set ci liñ ma jiñoon moo njëkk a wàcc alxuraan volé lañ ci am bo xamné moy ben benn kat bu góor bu jigen lay jëkke ak kat bu goor mais léegi est-ce que mom rek moy seyenté deux deux deux premiers versets au sourate an-nur yi lañ yi xamné ño ñoo concerne les fornicateurs et les fornicatrices. sunu borom da fay wax subhanahu wa taala bismillahir rahmanir rahim auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذهم فيما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون léegi bi suñu borom dafay wax ne saar la boo xam génn ci ay aayal yoo xam ne pour yéen ngeen di fàttali nee na njaalookat bu góor ak njaalookat bu jigéen na ngeen leen dóor téeméer yar bu leen jël ci ñoom mukk yërmande te nee njaalookat bu góor du tax lu dul njaalookat bu jigéen njaalookat bu jigéen lu dul njaalookat bu jigéen te loolu dama ko araamal jullit yi mu dellu wax ne ñi nga xam ne dañuy jël lu bon lu ñaaw di ko teg ci deru nit ñi ay waay ak a bëri ay waay ak a jigéen ñu yàq seen der demu ñu dikku ñu sax la xew yàlla nee na dinaa leen buggal mbugal goo xam ne ci àddina ci àddina ak àllaxira te buñ ci amul benn preuve na ngeen leen dóor quatre-vingts yar ndax ñooñu ñooy faasixoon ñooy nit ñi nga xam ne seen diine dafa yàqu ba pare ak a bëri kon nit ñuy dox ci àddina bi fekk seen diine yàqu na ndax jiñ nañ nit lu mu deful waxal nañ liñ deful dëkkal nañ nit fi mu dëkku wala iyaazu billah yal nañu yàlla musal

nan la mooy yàlla di indi ci seeni mbir lan la mooy yàlla indi ci seeni wërsëg la la mooy yàlla di indi seeni seeni buntu liggéeyukaay wala yëpp daal en tout cas conséquences yi fornication di indi ci nit. subhanallah jërëjëf Adja gis nga sunu borom ba mu xoolee ci saar bi ne ñi nga xam ne dañuy sosal doomu aadama teg ci moom leen daf caa teg leneen mooy jëkkër buy wax jabaram di teg ci deram lu bon ak jigéen buy teg ci deru jëkkëram lu bon ne njaalookat la yàlla nee na bu dee bettu leen ba am ay seede na nga am ñeenti seede soo ko amul juróomeel ba ngay waat ne yàlla na ma yàlla def yàlla na ma yàlla alal bu dee ko ka la bu dee jigéen ki nga waat ne yàlla na ma yàlla mere bu dee li mu wax dëgg la xoolal mere ak alak ndax jigéen boo yàq deram surtout ngay jëkkëram nga xamne yow yak ko waroon protéger nga yak deram wax ci mom lu ñaw yak nga deram yak nga ay dekk yak nga ay doomam yak nga avenir bu ko yalla setalul ci adina ci bëri na nit ku ko deful yalla da koy setal toujours mais jigen aussi nga jiñ sa borom keur lo xamne ne yalla yàlla ne daf laa me waaw nga ñu jiñ la lo xamne mëno ko wéddi fenn fekk nak yaa ko def yalla ne def la mere ndax mere mo gëna oyof ka alak waaw léegi bu wax bu wax jabaram yenn yu yu bon ba mu ba mu ba nit di ko xoole yàlla nee na alak naa man waaye léegi conséquences yi laa la bëgg a ñu ñëw ci fornication dama lay wax ndax njaaloo en général ku am jëkkër ak ku amul jëkkër la ku am jëkkër ak ku am jabar la loolu mooy njaaloo bi gën a gara garaaw beneen bi fo ah, fo lañ ko tudd déglu ma rek beneen bi fo lañ ko tudde mais zaani la xoolal kële dañ leen di dóor téeméeri yar boo ci dundee nga xam ne dund dund nga ci ñële dañ leen di rey ak am différence mhm. waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane yaa ma'shara shabab man araada minkum al baa'ata falyatazawwaj yéen xale yi ñi nga xam ne toll ngeen ci sëy ku ci bëgg sëy na dem takki jabar wa man lam yastati' fa alayhi bi siyaam ku ko mënul na dëkke woo biir bu vide biir bu vide Adja du xool du am envie biir bu vide du am envie donc boo mënta takk jabar amagoo lii bi del woor boo wooree sa xel mi ngi dem ci yàlla mi ngi xam julli mi ngi xam jàng alxuraan doo xool leneen ba yàlla may la nga takk nga maandu lu jafe la nag. non mais gëw ma woor woor moom. waaye ñu leen di wax. lan lañ leen di wax. Eh, wax leen rek laa taqrabu zina bu leen moytu njaalo ay waay bàyyi leen njaalo. mais est-ce que njaalo day gàtt fan. njaaloo day um doomu aadama njaaloo day yàq wërsëg day gàttal fan day gàttal fan balaa bu ñëw mën na la dugg rapidement te xale yi lii xoolal liñ ci mujj rek barki démboo njaay ñu dégg ay mixta ak xaw ma lan sex step ak yu ma xamul xoolal ma lii rek laa xawla wala xuutay xale yu juddoogul ana xale di yàq sa bopp ci àddina te juddoogoo ñun suñu génération ay nit dem na ba ay vingt sept ans jëm doo xam sax mooy affaire sex sexe mais léegi quatorze ans quinze ans dëgg la nag bokkuñ jamono y'a l'évolution internet a ngi fi télévision nga fi te kenn mënatul contrôler kenn waaye li ñuy ñaan way jur yi mooy ñu dellu si ci yar xale yi dellusi bi toog di wax ak ñoom di wax leen lan mooy mooy yàlla lan njaaloo ak lan lay def ci même xale nga teel a xam sa morom musiba bi mu lay indil ci àddina doo ko xam musiba bi mu lay ci àddina doo ko xam nañu ëlbatiku yar xale yi nañu ëlbatiku yar doom yi nañu ëlbatiku delloo ñëpp ci diine lislaam ku sa doom jàngul alquran ci commencement bi fexeel nga wutal ko ustaas wala sëriñ daara bu ñëw ci biir kër gi di ko jàngal ndax it boo leen waxee dugg leen ci internet bi mënoo ci dara duñ ca dugg imposer leen sëriñ buy ñëw di leen jàngal trois jours trois wala deux deux fois par semaine ñu xam diine xanaa xamoo ne allah bi zikrillahi tatma'innul qulub yàlla nee na ci tudd yàlla la xol di dal la xel di dal ba nit ki du tëri tëri leen di defee leneen ngeen di leen xool rifaat suuf. di leen xool ñu bañ am ay xarit yu bon yu ñuy àndal di yàq seen àddina bu njëkk xale bu ne dëgg sa tànk xarit ñëw fa lal sa waajur di bëgg xam ki fan la dëkk ak fan la bokk ndax dañ naan fa mu bokk dina tax dina jombale leen la fa mu bokk dina tax mu baax ak kan moo ko jur waaw mhm. léegi je crois qu'on a fait le tour ci ci fornication ak euh, moy yalla mais bëgg naa avant muy jeex nga def précision. Mhm. lan mooy différence entre parce que doone ñun duñ nee fornication en français moy ñaar yoo xam ne amaguñu jëkkër mais duñ nee njaaloo maanaam ku marié wu pare am far wala am beneen ku jigéen loolu mooy adultère. Mhm. mais man fornication bu ma lay wax mooy. Mhm. xale yi xam ne amaguñu jëkkër amaguñu jabar mooy suñu génération gii. loolu nga ne foo lañ koy woy ci olof waaw nga ne loolu day gàttal fan lépp lay def day gàttal fan day gàttal wërsëg njaaloo ci boppam en général mooy nga def di nekk ci ci ci ci relation sexuelle boo xam ne daganu ka amul jëkkër ak am am ñàkk am ñaar ñu amul jabar ki amul jëkkër yoon jabar ñu nga ca njaaloo fola waaye ba gën a dangereux mooy ba ñax ne ñu ci lien de mariage parce que amatuñu prétexte xam parce bu yaa ngay yaa ngay ñaan yaa ngay wax yàlla na la baal parce que da am amul woon foo foo foo foo satisfaire sa libido wala jigéen ko mënu tey boppam mhm. ngeen tëla tëla ba ne tëll ci mbir mhm. boo leen ca tuubee yàlla dina leen a baal waaye ka am jëkkër ak jabar ah de def ngeen buxtaan azim def ngeen ci kabaayir yi gën a mag te bokk na yi nga xam ne boo ko tuubul yenn tuubi yàlla du la ko baal waaw donc euh, ñu ngi lay bàyyi juste nga tàggatoo. Mhm. ñu ngi ñëw ci suñu fin émission. Mhm. waaw nga wax rek euh, sa tàggatoo ci ñi am ci aussi mais aussi sa tàggatoo aussi ci génération bi. xanaa di leen ñax rek nañuy jàng alxuraan nañuy këstu diine ndax diine boo ko amee yenn bi inna salaata tanha anil fahsha'i munkar yàlla nee na julli day tere nit ki di def lu bon ak ñaawteef soo jullee euh, fajar. di nga téye sa bopp ba xalaat ne doo def lu bon ci fajar gi ci tisbaar bi bu tisbaaree boo jullee di nga moy di nga bañ a mooy yàlla takkusaan takkusaan boo jullee di nga bañ a mooy yàlla timis ndax yaa ngi sàng timis ba ak géewe ndax yaa ngi sàmm sa diggante jullit yooyu nga julli yooyu nga fexe ba sunu borom du la ci bindal benn bàkkaar mm-hmm. waaw waaw léegi euh, ñu ngi leen di tàggatoo te di leen wax euh, à la prochaine fois, comme d'habitude, euh, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Euh, cliquez un j'aime si vous aimez, mais aussi un commentaire si aussi c'est possible. N'oubliez pas, à la prochaine fois ci une émission ci la chaîne Kemtan TV donc à la prochaine Inch'Allah. merci beaucoup et au